xibaar mu denc ko di lekk ah c'est ce que les mairie ah, Dakar. waaw ak Guy Marius Sagna c'est la mm. même période. mais est-ce que quelque part amoo sentiment que ni euh, maire Dakar moom Barthélemy Diaz. waaw euh, dafa la bëggoon dafa pour pour des combats politiques. c'est-à-dire que xam na ne kii mm. euh, nit la koo xam ne am na un pouvoir buy mënee contre un combat personnel moom c'est un irréductible adversaire du pouvoir mu ne j'en profite. Mm-hmm. wala du du du sentiment boobu nga ci amoon. waaw gis nga. moi mm-hmm. euh, je vais direct hein. oui et si bu ko Barthélémy Dias defoon c' est de bonne guerre. c' est de bonne guerre c' est un homme politique. Mm -hmm. il une situation politique. Mm-hmm. il a le droit d'en profiter. et je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Mm parce que des personnes c' à dire da ngay wax ne am na ñoo xam ne def nañ loo xam ne du yoon. il faut qu'on accepte ça te je peux pas accepter l'argent des autres et dire non non parce que c' est un homme politique mais il faut mooy je n'ai pas de problème même vous aujourd'hui boo ñëwoon sama kër ne ma hmm. capitaine am cinquante mille yi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non non vous êtes journaliste à Walfadjri vous êtes opposant moi je de l'autre côté je ne prends pourquoi <laughs> hmm. Barthélémy Dias un Sénégalais qui a été élu par les Sénégalais au suffrage universel direct m'a proposé un travail hmm. ma jël ko encore une fois je vais c'est bien de, de clarifier xam nga mooy quand j'ai dénoncé l'affaire des histoires de salaire la Barthélémy c'est pas problème d'argent Barthélémy si je lui posais Hmm. il règle plus de c'est-à-dire moom euh, boo demoon ci bureau Barthélemy Diaz. je ne hmm. suis pas en train de la propagande. mais allez-y pour vous dire Barthélemy c'est pas un problème de tout le monde bu ma demoon foofu nekk ko aw ma oto bu may ñibbee sax il va dire s'il y a de la mairie dina ne jox leen ko bii koy liggéey y a pas de souci Barthélemy man depuis deux semaines maa ngi koy bëgg a gis. Hmm. mais il règle des cas sociaux mënu ma ko gis je po pas avoir. mu ngi ci cas et je comprends. Mhm. donc c' est n' est pas un problème boo xam ne nit ñi c' est pas un problème c' est problème de manière c' est mhm. nu ñu koy defee c' est à dire moi aussi. waruma toog comme ni ma la gis nga même quand on m'a enfermé. boo boo nee problème ni ñu koy defee mooy dañ la recruter après joxuñu la salaire. mais aussitôt parce que Barthélemy si boppam moo génn wax ko. Mhm. xam nga loolu du man. xam nga la mairie a sa communication je ne voudrais pas aussi qu'il une confusion mm ce que je dis et ce que la mairie dit la mairie communique moo tax je mm-hmm. voulais pas communiquer sur ça c'est-à-dire si je vous ai expliqué ça c'est pour clarifier mm-hmm. parce que je suis vraiment loyal au euh, on est ensemble et je ne le cache pas. léegi da nga bëgg maire bi da nga démissionner wala. non c'est pas pour démissionner c'est juste xam nga on travaille avec quelqu'un man je suis plutôt en rapport terrain. Mm -hmm. tout donc il est dans les cas sociaux et tout ça c'était juste un exemple pour vous donner pour vous donner un exemple ne la mm-hmm. Barthélemy mu ngi si liggéey bi a gars donc euh, il n'a pas le temps la man lu ñuy wax ne ça Barthélemy il profite de mon image il ne l'a jamais fait Barthélemy il pouvait fu mu ma yóbbu ma yóbbaale ma mais est-ce que vous m'avez une fois vu à côté de Barthélémy Dias. moom hmm. c'est moo jaaxal. voilà ñu cest à hmm. hmm. finalement lan mooy sa liggéey. ci maire Dakar parce que le maire il se déplace très souvent. kenn gisuloo ak moom. bu ñu nee ma euh, de la sécurité de la sécurité. dañ naan mais mais ça consiste à quoi exactement. xam nga loolu laa la wax aussi. c'est une confusion c'est pas je ne suis pas chargé de la sécurité du maire. xam nga un conseiller en sécurité urbaine. xam nga maire bi am na ay pouvoir yoo xam ne yu ko yoon jox. Ah man tey bu maire bi gisoon benn situation par exemple. si côté marché Kermel mu gis ne am na amul sécurité et tout mhm. mun na ma woo ma mon capitaine est mun nga ma defal un rapport. oui oui sur comment régler cette situation. absolument. comment on peut saisir la gendarmerie ou la police mhm. est-ce que ici le secteur la police parce que moi j'étais là je connais secteur la police ak le gendarmerie mhm. comment régler ce souci ma wax ko mun naa aussi tey mu am convention en matière de sécurité bu muy signé mu ne ma mon capitaine est-ce que tu un ma voilà donc ce n'est pas ah, gis nga au-delà de ce cest à gain politique et c'est normal comme je vous dis mm. il ne faut pas nier le fait que moi j'ai été formé dans la gendarmerie sénégalaise mm. j'ai des diplômes yoo xam ne ça me permet d'occuper cette fonction mm. moi mes promos dans la gendarmerie sont commandants de compagnie la la, compagnie en général elle elle rassemble c'est-à-dire ñaari wala ñetti région mm-hmm. donc quand on te dit que tu es maire que nga war ko defal ay rapport mais loolu tu peux même être chez toi nga def du télétravail. Mhm. parce que moom bind bi la c' est pas le fait que Capitaine Touré soit là. Mhm. est ce que mus nga gis man ak Barthélemy ma taxaw si biti muy def campagne ñu ànd je l'ai jamais fait. Mhm. donc loolu dañuy diaboliser rek xam nga ñun Sénégal. comme je vous di dit au départ boo toppee li yi di wax si moom. souvent dañuy yàq dërëm. avant de rencontrer Barthélémy Diaz. parce que là c'est intéressant Barthélémy Diaz nekkoon nga gendarme. mu nekk un homme politique nekk sur le terrain. Mm-hmm. nekk quelqu'un boo xam ne. toujours toujours en <laughs> conflit avec les force de sécurité. Euh, tey ngay liggéey ak moom euh, est-ce c'est la est-ce que c'est la même personne est-ce que ki nga doon gis la la la même perception. waaw là aussi c'est très important <laughs> sérieusement avant de rencontrer Barthélémy. Uh-huh. et je le craignais un peu quoi parce que xam nga rek li ngay gis lu image bi di gars yi di véhiculer mhm. voilà tu penses que c'est quelqu'un qui est mhm. am na li nga koy jàppee quoi mhm. mais quand j'ai rencontré la personne mais sincèrement ce n'est pas pour faire encore comme ni ma la la propagande mooy ñuy dem foofu xam nañu mais c'est une personne formidable sincèrement quoi wax dëgg yàlla man li ma won il a le sens de l'écoute mi boo fa demee loo ko wax il le en tout cas man loolu laa ko xamal je ne connais pas ces autres problèmes. Oui. li ma ko xamal laay wax man li ma ko xamal c'est quelqu'un de formidable. Mm-hmm. bu ma ñëwee expliquer ko c'est bon si j'ai un problème ma expliquer ko mu ne ma gère ça avec le SG ma woo SG bi wala ma yónni ko mel. le reste c'est pas important. lan moo déterminé euh, capitaine Touré sa choix wu. Mm-hmm. Euh, jékki-jékki rek annoncé ne.